bare nit ñi di dem yéega affaire yi sàddee la nit ñi di yéeg nit ñi amatuñ mu bëggoon nga wax ma sa xalaat ci état yi nga xamante ne dañ leen di fal ay nit ba mu fees dell ba nga xamante ne nit ñi diñ ci mën a taxaw lan nga ci xalaat. li njëkk mooy carré doyuñu nit ñi dañuy xëyandoo di wàccandoo même heure foog mu demee noon ci sama xalaat man. loolu moom c'est normal parce que moom moo ma fi bàyyi léegi deux bi dem nit ñi dañu fees bay lang loolu wóorul parce que wóorul si ki def wóorul si ki wóorul si kenn si ñoom ñëpp parce que choc bu si am maar de taali kooku moom lu ñu war a lijjanti la parce que nombre de place si am ak nombre de place bu taxaw dañ ko war a limiter fu mu yeme rek ñu yemale ko fa. sama xalaati ci biis yi mooy lan surcharge bi baaxul parce que fii mu ne nii da nga gis ku taxaw ci pied bi lu balaa ñu lu jot bateau de jola waru leen ko jot parce que jaan bu la mattee boo gisee si ndax da nga daw parce que loolu amul sens nañu wuti kaar yu doy nit ñi yëg ñu ñu ñu ñu nit ñu indiscipliné parce que loolu wóorul dafa wóorul lu wóorul. biis si waruñ leen chargé bañ fees dell même jigéen ñi sax buñ duggee amuñu kàttanu téye buntu ci bunt bi mais léegi damay gis sax day léegi léegi benn bis mu romb benn jigéen ñëw taxaw ci bunt bi la taxaw te loolu c'est très dangereux te bunt bi duñ ko tëj te du yoon te ci biir ni muy tàngee ak ku ne sa maladie sax malade mën ngaa mën ngaa feebar nooy ko sa morom mu mu mu jël ko te loolu yëpp c'est très dangereux. li ma si xalaat mooy te jii yow soo doon xëy tardé su la oto bi romb doo chauffeur mom amono lu yëg lañu tej porte xam nga suma la fa baye do fa nangu si parce que sa waree dugg huit heures nelaw ba heure bu la neex nga jog soo la roota bi la nga am ban kina ngay nana waccal mu wacc ko wax mu waccal day bañ léegi kon loolu loolu si man ñoom kay ñom ci kina ay la ñom ci ñom lu ñu xol no organiser seen bopp. police yi ak gendarme yi fofu ñoo deful seen ligue parce que Ndiaga Ndiaye bu ci charge dañ lay japp benen auto bu ci charge ñu japp la mais Tata amul mom mom lu mu lu ko neex def policier du ko téye gendarme du ko lolou loolu si loolu moom si homme de loi yi la quoi. manam du ci chauffeur yi du ci receveur yi waye ci client yi la parce que bo gisé auto mu ngi yeb ba fess amo ci place war nga mëna taxaw nga xaar benen buy ñëw ci ginaaw parce que du ben regay daw di wër ci dëkk bi auto yu bari nañ fi liñ bu ci ne yaay lu mat ay 10 ba 20 auto waaye nag nit ñi ñooy dugg di xatal seen bopp di jël di ko sippi si kaw chauffeur chek receveur yi fekk ñooma ñoo sookee lépp waaw waaye bu dul loolu boo gisee oto fees moom war ngaa mun a taxaw nga xaar beneen bu feesut mu ñëw nga dugg ci dem. gendarme yi nekk si tali bi ñoo war a jël seen xam nga responsabilité quoi tata bu ci chargé ñu la keppee fourrière la xam nga da nga war a jël benn nombre xam nga bu gaay toogee ba mu mat. nga jël benn nombre buy taxaw xam nga mais jël ko rokos ko ba mu fees xam nga loolu waa du yoon quoi parce que dara mun na ci am parfois da gis tata bu chargé ba weng xam nga gars yi ba pare gars yi waa di daw xam nga loolu ak loolu te loolu waa du yoon quoi. loolu non seulement infraction la parce que bu ñu jëlee cas bi si bateau le gis nañ fi lu nekk parce que boo seetee ba seet sur surcharge yi la quoi aussi xam nga pour man war nañ jël leçon si bateau le Joola bi quoi parce que xam nga loolu yëpp. kenn mënu koo fàtte ba tey mu ngi des ci mémoire bi. waaw ah, surcharge bi moom ñëpp xam nañ ne surcharge bi moom baaxul ak ak li fi xew récemment rek ay la Joola ak euh, bus yi di accidenté tout ça c'est à cause de excessif bus yi moo tax surchargement bi moo tax ah si gouvernement bi jógul moom ah du baax de. waaw dañuy faral di gis tamit ci biir bus yi euh, nit ñi nit ñi tàncaloo noonu di fa di fa fees ñuy am ay ñaawteef yu ñu ciy gis loolu tamit euh, lan nga lan nga ci xalaat. mooy comportement la rek ci comportement doomu aadama la rek parce que nii bu civilisé yiw am na loolu du ko xalaat daal waaw mais lépp tàncaloo bi moo ko indi. loolu moom am na kooku moom footu ki koy def la maire du kii fu parce que tafu bi man leer na ma siisu bu ñu lay sësu yëpp leer na ma kooku yëpp tamit bon kooku mënoo ko mënoo ko situer kenn lu dul ki koy def mais c'est pas du lu baax. te kuñ si jàpp war nañ la tek si yoon buñ la tege si yoon benen yoon do ko def keneen kuñ si japp ku ko wara def bo gisee lol do ko def. demb rek limay wax ni demb rek ma joge yoof no astaghfirullah wakam si sarte bis di si sarte benn grand jege ben jigéen mu jiiñ ko lo xamni ci ni c'est normal c'est pas normal du yoon. Hmm, mu jiiñ ko ko nako dag may sësu te xat xataay bi rek moko waral ñepp commencé nan ko gor ki gor ki gor ki. waaw mais loolu dañ koy faral di gis ci bis yi tamit na ah. bëri na bis boo dugg fekk ko ci presque. waaw léegi yow si jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo ko ci bëgg tamit ñoom ñooy fekk góor ñu toog ñu ñëw di la ko sas hmm. am na ñoo xam ne noonu loolu jigéen ñoo ñoo ñoo leen loolu moo leen di neex. sa taa seen taat yi. waaw yow euh, en tant que chauffeur yow lan ngay wax euh, ci ñi nga xamante dañuy dañuy bus yi bu feesee ñu xaar beneen mu ñëw xanaa moo gën moo gën la koy ci ñoom la parce que ki bëggee war a xëy huit heures yeewu sept heures ñoo war a tardé du mën a xaar beneen bi day tardé loolu moo tax ñu obligé di ko dugg ba mu fees mais yéen chauffeur yi tamit est ce que amu leen ci part de responsabilité boo leen gisee ne bis bi fees na ngeen tëj doo leen doo leen arrêt boo leen demati doo leen taxaw non du mën a parce que nit su fay xaalis war a wàcc arrêt bi c'est obligé nga wàcce ko client bi forcé yek doko yegal ya mom ma wara xaar bu fessé mo xaar muñ mais yow sofor bi doko man waccal parce que da ngay gis des fois nga def ko client comme ni sen nga bis bi da ngay def nga nako waccal mu ne duma wacc damay dem ko lo ci man do fa nek di ki da fa nek di xexa ak parce que nun ñom leen fi nekkal ñom ben lan dal ñoy wecc ki kon sa pas l'appel peine ñuy xuloo jàppante il faut ñu négocier ba kenn ku ne mën dem liggéey fat bi du client bi du chauffeur bi client bang ci chauffeur bang ci gouvernement bang ci ñepp nga ci biir parce que chauffeur bi waru ko nangu insécurité la si moom client bi insécurité la si moom gouvernement bi mooy ñi ñi ñi ñu bàyyi si tali bi pour ñu koy lijjanti ñooñu waruñu bàyyi ñu romb leen noonu c'est pas normal. man pali bi gouvernement bi am ñu am contrôle contrôle sévère parce que li ñu contrôler pièces yi war nañu leen contrôler noonu parce que normalement policiers yi war nañu contrôler leen bu ñu defee surcharge ñu wàcc leen. ku def si vous la la wala nga vous ko nga dem nombre très important man parce que responsabilité la ñu yor surtout quand la chauffeur bi lañu ne chauffeur bi chauffeur indiscipliné mais client yi indiscipliné parce que déjà bu chauffeur mu ne du avez ñu bañ ñu hésité ay saga ndey lay avez la amul sens wala avez bi la len ci client la parce que lu jot Balo de Joola lu jotum ba eh, bateau de Joola loolu moo balaa loolu dal ñu na nga ko éviter léegi. ki moom oto bi moo moo def fët boobu. waaw ki moom oto bi moom nekku ci biir oto bi. xaalisam la toppatoo moom lu ci war a am rek moom lañ war a teg ay droit. ci naka naka naka naka la yoonam moom moom moom moom oto bi moom nan la moom nan la fët bi nekkee ci moom. ndax oto bi dañ ko mën naa am ñu leb ko mu war koo fay. parce que lépp boobu noonu mu war ko fay noonu léegi moom li lu gars yi def rek arrangé na ko te arrangé wul bi li ñi li leen arrangé lan war di def te du yoon. bis fees mooy li ma la wax rek soo waree xëy da ngay ñëw xëy war a jóg heure war a jóg doo jóg ba war a tardé ñëw war a dugg huit heures xool sa montre mu leer di nga tardé oto bi romb la nga di force di nga siy yéeg soo receveur doo wàccal doo wàcc da ngay léegi oto bi day fees nga bëgg a tëj porte ñooy xulóog yow client yi yow ñoom seen seen biir la ñoom waaw loolu affaire bi loolu la wa lol mom borom auto bi la ak chauffeur bi ki da ci tigay quoi parce que tay bu len police yi doon jàppale gendarme yi ñu ci ñak seen xaliss wala ñu ci sonu dinañ fexé ba seen auto yi kenn du ko si chargé parce que ñom ñoo yor responsabilité auto bi bu client yéegoon tay am lu muy yàq ci auto bi dañ koy wàcce to lol lu yàq la quoi. nit bo taxawé gis auto mu fess amo nga xol war nga xam fii mun naa fee dugg wala munuma fee dugg bu fekkee mu noo faa dugg boo duggee da ngay buruxaloo nga war a mun a taxaw xaar beneen buy ñëw si ginnaaw mun naa am nga gis si espace booy mun a taxaw buruxaloo bi bañ a am loolu daal lépp daal si nit ñi la aayoo. faute boobu ci chauffeur bi la. même tamit mën na nekk tamit ci kii euh, client bi quoi parce que yow client bi soo gisee tata bi fees war nga mën a xaar beneen mais da ngay gis tata bi fees delli client bi di gën a buuxante pour mën a dugg xam nga chauffeur bi tamit day gis mu fees dell mu daw ba mu neex ko taxawaat waaw ci kii arrêt waaw di kiiwaat di jëlaat quoi xam nga te loolu waaw du yoon quoi. avant tout avant chauffeur clientèle bi état bi parce que état bi non seulement aussi ñu ngi fiy teg ay policiers pour loolu kon nañ ci bàyyi xel. nombre la wax nañu jël nombre deug la aussi bus yi manké nañu problème moy dañu wara yokal ay bus parce que man mi ngay gis ni maa jang jàng de la force yeen sa damay ñëw fi gis nga depuis bonne heure xawna fi yag pour am oto waaw ci obligé même bo gisé fess na pour baña tarder rek nga ne ba nga dugg nga dem choono bu ne dañ ko fi daj pour éviter tout ça yaakaar na yokal bus yi tey kon lan nga yaakaar ne loolu la war a def ba nga xamante ne tàncaloo yooyu noonu ñu ngi faral di gis ci bus yi mu wàññeeku. yokk bus yi mu bare rek kese moo ko mën a defar yokk bus yu bari client bi war a xëy 8 heures teel a yeewu 6 bu boo feesee mu xaar beneen. li ah, ñu war a def moo ñu def suffisamment de bus mu doy parce tamit xam nga yow boo nekkee si arrêt bi ba yàgg bu kaar bi ñëwee loo si am rek danga naan naa rek ñu wut suffisamment de bus bus yu doy nit ñi mën a dem comme il faut parce que ku mel ni ñun fi ñu dëkk benn bus moo fay dem 40. bu ñëwé day fess ba fot mais nak tu es obligé nga xat xat loosi bien que c'est pas normal woru créer ay ay agence yo xam day contrôler espèce ño xamanteni spécial lool lay contrôler. taxaw ci arrêt yi taxaw ci arrêt yi ku ci gis lo xamanteni def nga lo xam du jaadul teg la ci yoon. wa lool mom lañu wara def moy euh, wax ak police yi ak gendarmerie ño xam ñom ño nekk ci kaw tali bi loolu ñoom buñ ko bañé rek dootul am. parce que euh, chauffeur bu ñu jël sa permis après dootoo si charge en général faut bi pour client bi client bee ngi ci biir chauffeur bee ngi ci biir gouvernement bi aussi autorité yi aussi ñu ngi ci biir ñoom ñëpp ñoo fautif